Euh, Sunugan Mam Maktar Mactar assalamu asalaamaaleykum Seigne bi Guèye. waaleykum salaam wa rahmatulah. vice président bu ONG Jamra. Hmm. Euh, ma fas yéene ànd ak Pape Bes Diba euh, ci ci waxtaan <laughs> comme da ngaa fàtte woon tour. bi. ñu lay dalal jàmm ci RFM matin. as hmm. li lëmbee en tout cas yéen ci li ngeen di yëngu jamono ji ma di avortement médicalisé pas avortement médicalisé autorisation ci lépp nag waaye ni ko yenn ci kuréelu kuréel di Sako, manam bu fekkee am naan viol ak euh, inceste te itam euh dunduk nit ki nek nek en danger euh, yéen da ngeen koo bañ est-ce que fi jamono toll ak itam danger bi nga xamantene ne ka ma dal euh mu ko jankontel est-ce que gënul ñu may ko ko. Georges mang ngi lay nuyu di nuyu sama doomu ndey Pablès ndax. Euh, euh ci dalal bi ngeen ma dalal ci sen ëtt bu tedd bi di sóoraale ci nuyu mboolem équipe bi yëpp ak

alors euh, Pabless euh, wax nga dëgg c'est devenu pratiquement un débat national. waaye leeral du doy. Euh, maa ngi bëgg au mouvement féministe Il est ñaan de revenir un peu à la raison ndax fan les réseaux sociaux sont ngi on est entendu n'importe quoi waaw Jamra ginnaaw bi ñuy songee Syrie l'en. leen ba ñenn le régulateur de l'audiovisuel le procureur Teklen Aydan pour euh, dégradation de l'image de la femme atteinte aux bonnes mœurs ou pornographie Les féministes Jamra droit vers nous demeewul nous, mel ni une ñun fi pas histoire c'est pas ça Euh, comme que euh, denc dafa malheureusement radio. la mu numéro voilà c'est un numéro du journal Diamra. parce que Diamra, je rappelle que nous avons créé en février 83 ça fait 38 ans ci alors c'est un numéro de février 88. Alors, qu'est-ce qu'on voit à l'avant-dernière page ici Dossier avortement, le cri silencieux. Quand m'a signé votre serviteur gis nga temps yoy sax coiffure euh, afro-américaine alors kon ñun bañ ci en février 83 ça fait 38 ans kon a croisé won nañu le faire avec la l'ancienne génération des

cette nouvelle génération de féministes juddoogu leen woon. kon nak nañu bàyyi task force bi nak Mamata ou ay féministes rek ah. non moi je parle de ñi parce que ñi ma attaqué dañu am visage. et tout ouais, mais du féministe rek. non je parle pas qui fa dalal dem du féministe non déggoo ma tout baatu Je reste là. D'accord, mais déggoo ma tudda baatu task force. dama don des mise au point non mais da ngay nangu buñ la invité. task force bee tax ñu invité la. mais pas ñi nga xam ñoy waxé ci. voilà mais je faisais mise au point voilà alors task force bi nak d'abord c'est un terme bon, xam dafa doy je me rappelle à la guerre golfe bi George Bush <laughs> équipe militaire bi donne réfléchir sur les stratégies Non, non, non, leen tuddee c'est une intonation guerrière bo xamné ne fi ñun xeexuñu xuloowuñu tongoowuñu. c'est le Sénégal terminologie terminologie la rek ndax même ci politique yeeg yëpp dañuy taxaw Sénégal fii lepp dañ koy waxtané mm-hmm. alors bu ko euh dañu nekk ci dëkk bo xamné qui est imbu de ses valeurs traditionnelle, culturelle et religieuse Nous sommes dans un état de droit ci ben démocratie. c'est la voie de soi. Alors, il y a alors yalla l'écrasante majorité des croyants de ce pays musulmans comme chrétiens confondus Et je salue au passage euh, euh, euh, le, prêtre Alphonse Sec rappeler la posture de l'Église qui rejette fermement toute forme de destruction de la vie. Parce que l'Église est beaucoup plus radicale que nous. Parce que dès qu'il y a conception, une vie humaine est engagée. Alors l'islam, euh, le contrairement à ce que la task force écrit dans ses flyers Nanwaou, euh, déjà umma ne parle pas d'une seule voix parce que tout le monde sait qu'il y a quatre grands courants dans l'islam euh, anafite, euh, shafite, et malikite. Ni euh, nee nañu au bout de 100 jours Si le fœtus bi une vie humaine Ni nee au bout de 40 jours nañu def attention la communication bi te informés dans ces dans ces théories là le dafa dogal Le euh, Sénégal a une diversité vraiment honorable ci wàllu ay yàlla dogal na Touba Tivaouane Ndiassane Thiénaba Niassène Medina Baye Layène famille omarienne ñoom ñëpp ñu ngi tënku ci nguuru imam Malik donc y a pas de divergence imam Malik lu mu wax dafa sukkandiku ci benn addisul qudsi bu wér mu di addis yi nga xam ne donte la du alxuraan waaye suñu borom moo ciy wax ak ñun alors mu soloo ko ci imam Malik imam Muslim mu ne bu embrion bi amee 42 jours ci biiru ndey c'est-à-dire au bout de la quarantième de la quarante deuxième nuit suñu borom dafay yebal ben malaayika chargé d'une mission consistant à insuffler une âme dans l'ovule fécondé de la mère donc d'après de muhammadiya à partir de ce moment là bakken tu auras commis un meurtre qui appelle une réponse judiciaire est-ce que 100 jours yi aussi amul ka lan bi amul école bi ko wax 100 jours yi ñu wax aussi waaw mota tax ma la école amu fi ñari parce que euh, Touba Tivaouane ño bokk école non yow Sénégal nga wax mais l'islam benn la aussi ci lama ma euh, dans, le monde entier dans le monde dans le monde il y a Anafit qui dit 120 jours il y a Anbalit qui dit autre chose mais mhm. fii euh, Malikit mo fi am Touba Tivaouane Ndiassane tianaban Niassène Medina Baye layen ñom de dañu tënku dans l'école jurisprudentielle malikite alors ñu sante yalla bi nga xamné la science hmm. Sénégal nous euh, avons protocole de Maputo. Maputo. de Maputo voilà état yi engagé wu mais soo ci engagé on a quand même da lay lier. aussi nous fondé wu di demander état au Sénégal mais mu conformé wu ak législation wam ak. protocole de Maputo bi nga ni ci gaa wàll googu mais si biir loolu itam ñu bi par rapport ak Sénégal moo ngiru imam Malik ñu ngi sant yalla bi nga xamné un pays aussi matérialiste que les États-Unis mois de mai bi passé le gouverneur du Texas signé na ben loi daal di ah amna lu xew ñu ne ko lan la mu ne way docteur dañu ragné né fœtus bi bu défé six semaines ci biiru ndayam électrocardiogramme bi le nek qu'il y a des battements de cœur kon nous ñun décidé né ñun Texas bu fi ken avorté ci au-delà de six semaines. mais Matar États-Unis lu mu matérialiste matérialiste sen président suy wat ci bible la koy teg voilà alors donc nous avons confirmé que l'islam il y a 42 il y a 1400 ans protocole je rappelle que les euh, engagements internationaux euh, qui sont en total déphasage avec les croyances culturelles et religieuses du, Sénégal Doufilou Bess, de je citer à titre d'exemple en 2009 tout le monde a ministre de l'ancien régime man Fala j'étais le porte-parole de la mouvance présidentielle posture bi Seydou Gueye Amon, Amon, président de conseil d'administration Nous sommes dafa demoon euh, conférence de Genève bi nga xamné euh, dañ fa document bu l'appel des 66 c'est-à-dire les 66 pays yi doon des pression ci Ban Ki-moon le secrétaire général des Nations Unies pour ñu assemblée nationale assemblée générale des Nations Unies pour une dépénalisation universelle de l'homosexualité ministre boobu ñu fa tuumaaloon amul woon mu def coow lu rëy ci dëkk bi ñun ñu def marche bien que amoon na ay teraanga ci régime bi mais dama ko tegee ndale défendre sama diine ak samay valeur moo ma ko gënal ñu ànd ak imam Mbaye Niang ak Aliou Sall fii ci grande mosquée pour demander au président de la république de clarifier l'opinion ndax moo ko signé oui ou non Abdoulaye daal di yónni Bamba Ndiaye le ministre chargé des affaires religieuses yónni Bamba euh, yàlla na ko yàlla yërëm yónni Koumba euh, Gaye en charge des droits humains ñu daal di démentir formellement ne ñom signé wuñu ñun ñu même ko signé cet appel de 66 pour la dépénalisation de l'homosexualité ça n'engagera que vous parce que vous êtes en total déphasage avec nos réalités et nos croyances alors ñi tamit jóg protocole de Maputo daganal na yak bir manela 10000 10 000 protocole de Maputo protocole de Maputo problème de Bujumbura ci yem état bu ko signé ngay chef d'état le ministre ça n'engagera que toi parce que Touba rejette l'homosexualité et l'avortement Medina Baye lion. et surtout la famille omarienne qui a une posture plus virulente parce que j'ai posté sur ma page Facebook C'est du madame Ital, Mais je demander à tous les musulmans de ce pays de se lever parce que il est hors de question Quand on kon le protocole de Maputo Bujumbura ci am ça ne peut pas passer ici. léegi euh, ci ñoom lañuy ci la surtout si la vie c'est en danger ki nga xamantene ne antunul antunul ëmb bu demee ba war a faatu ndax ëmb googee lan moy solution bi. voilà loolu suñu diiné rek la na ko. sauve sauve kii euh, voilà suñu dañu nek euh, ci dëkk bo xamné il y a ces deux axes là mom le Pape Blaise di fàttali légui et c'est ce qui fait la le caractère laïque de notre république diiné réglé na ko la législation sénégalaise réglé nako ko. Mm-hmm. naka la ko réglé yàlla dafa dogal ñu nek ci diiné majoritaire bu wax ni euh euh euh, euh, face à deux mots, il vous est permis de choisir le moindre mal. Mot m a x le prix de mal. ndax dîner l'islam dafa ni ci suratul baqara la ikraha fi din il n'y a pas de contrainte en religion alors et à cet égard euh, ci vous faites que Georges da voyager traverser une forêt pour dem ci village voisin nga réer ci all bi wëre wëre wëre wëre ba deux jours trois jours tu n'arrives pas à retrouver ton chemin xiif di la bëgg rey sa bakkan xaj ci xam nga l'islam haramal na ku lekk medd comme beaucoup d'autres religions monothéistes d'ailleurs waaye euh, nga ñëw yem ci benn medd xar bu dee wala ginaar gu dee te yow boo continuer di wër six jours sept jours sa bakkan xaj na ci l'islam def na benn dérogation spéciale autorisé la nga jëfandikoo mbedd bi waaye boko ko nak ba gindiku ba retrouver ton chemin ba eggaat ci dëkk ba haramalat nañ à nouveau nga lek med. alors selon le même principe l'islam a na ci avortement mu dit que la règle générale en islam c'est l'interdiction Waye nak bu ëmb bi à condition naturellement que ce soit médicalement attesté dafa présenter ou de sorte que la vie de la mère est en danger sa santé est gravement menacée parce que xam a am de graves troubles cardiovasculaires une hypertension d'insuffisance rénale. insuffisance rénale c'est médicalement attesté l'islam autorise pour sauver la vie de la mère mais est-ce que vous n'êtes pas en train de dire la même chose aussi peut-être vous vous waxtaan ndax nous avons un avortement médicalisé bu la rek mais nous ñu est sur des cas spécifiques pour faire que la vie. de la maman est en danger. alors donc c'est la seule et unique dérogation pour diine l'islam tëral. Mm-hmm. alors ci loolu que le législateur comme c'est le cas dans tous les pays du monde le législateur loi les lois ne tombent pas du ciel Donc ko luxus day sur ce que vous spécialistes de la communication avez l'habitude d'appeler les réalités socioculturelles donc si le si le législateur du sukkandiku dans l'article 305 du code pénal qui dit que au Sénégal l'avortement est interdit sauf s'il y a des problèmes de santé graves qui risquent d'hypothéquer la vie de la mère sur le code de déontologie des médecins article 35 ils ont été plus radicaux en se disant que nous médecins nous nous interdisons toute IVG interruption volontaire de grossesse sauf s'il n'y a pas d'autre moyen de sauver la vie de la mère que de la que d'interrompre cette grossesse Graduons sur la loi de la santé et de la reproduction article 15 démocratiquement voté par l'Assemblée nationale du Sénégal qui est un pays souverain alors euh, si la grossesse euh, se profile de sorte que la vie de la mère est menacée alors on peut autoriser si toutefois c'est attesté médicalement euh, d'interrompre la grossesse Quand toute l'architecture législative du Sénégal vise la même chose alors là, nag ah, ah, ah. ñoom ñu di un concept bu est daal ne bu viol ou wala inceste alors inceste parce que également a des ay conséquences alors da ngay wax valeur tout le hmm. temps valeur suñu valeur suñu voilà mais inceste alors inceste euh, un petit crochet au Texas. Bi, euh, féministes attaquaient la loi du gouverneur grec euh, Abbott. Mais voilà mu ngi waxaat que six semaines nous avons autorisé euh, ñu dit saisir la haute juridiction mais le verdict est tombé le 2 septembre la cour suprême a dit bébé bi bu fi six semaines ba électrocardiogramme bi décelé des battements de cœur coucou, fat, faat nañu né dinañ la wara tek atté ku nit ñu né inceste la cour suprême ne même en cas de viol et d'inceste alors qu'ici ici au Sénégal

l'article 305 du Code pénal, l'article 15 du Code de déontologie des médecins, article 35 euh, du Code de déontologie des médecins et l'article 15 euh, de la loi sur la santé de la reproduction, qui sont très clairs que seule si la santé de la maman est à ce point menacée qu'elle risque de perdre la vie, tu l'as autorisé l'avortement nous nous la notion de viol et d'inceste Madeleine, il est un peu suspect et curieux que nous jël ñaari concept comme cheval de bataille pour bëgg daganal fii ci Sénégal yàq alors que et c'est quand même curieux que dans vos littératures dans vos flyers dans vos plaidoyers est-ce que war nañoo forcer nit grossesse dans leur plaidoyer jamais nga gis leen la promotion de ces refuges de ces alternatives que sont les orphelinats nous on a orienté pas mal de femmes qui étaient tentées par l'avortement et je prends à témoin l'orphelinat Ndeye Awasadio parcelle Assini, euh, unité 11 Nous avons ñoom un ñu avortement bi accoucher. mais est-ce que Mame Maman, au-delà de ça grossesse est-ce que war nañ ko mën technique de nit te bëggu ko. waaw moo la bu ñu ko tegee nit am droit bañ ko. mais elle n'a pas ak aussi parce que l'inceste aussi da ngay gis parce que inceste xam nañ lan la par exemple ab way jur buy seq ak doomam loolu am na la mu mën mën a jur ci doom gi ci boppam sax ci walu walu santé waaw moo tax ma ne la comme doom ji moom moomu ko dénkaane suñu borom la moo yebal benn malaika au bout de la quarante deuxième nuit mu def opération bu ñuy wax ruuhu rabbaniya sol ko ruu suñu borom kott subhanahu wa taala d'après toutes les religions monothéistes révélées te démb abbé Alphonse Seck rappelé na ko kenn amul droit de porter atteinte et quelle que soit la raison cette vie est là de porter atteinte à cette vie Nous, tout trop en tant que humain de un droit de vie et de mort qui suñu alors nous tax on a opté comme alternative le soutien aux orphelinats et aux pouponnières Nous avons assez régulièrement avec la pouponnière de Awa Sadio plusieurs filles qui ont été tentées par l'avortement orienté nañ Il des enfants qui ont failli être victimes d'infanticide orienté dans ba moom héberge na alors j'en profite ci votre antenne rassurer jigéen ñi orphelinat yi Barina, il y a les sœurs franciscaines la Médina bi que fii tout près de RFM il y a euh, orphelinat Ndeyaw Sadio Parcelles Assainies il y a la Rescousse bi nekk Sicap beneen a nga Mbour beneen a nga Kaolack na ngeen xam ne boo boo leen ñëwee duñ leen laaj seen tur duñ la laaj sa carte duñ la laaj njëgu biberon njëgu Mew, njëgu céréal ak wala couche bébé yow déposel xale bi

millions yoy buñ ko dugaloon ci pouponnière yi jënd leen ki meew ki selel ak dinañ leen mën dëmbali inshallah publicité ak leneen ay xëy na ñoom itam ñu ngi ñu ngi dugal ku nekk ak peut-être sa campagne ndax yéen itam bo leen ah, bo leen xewle yéen da ngeen jot moy li ñuy wax rek ah, un promoteur de lutte aussi exigeant que Mbasso Mbengue pour lekk avance am ONG jaar di nga sëgg bëri ONG yëpp ay jot financement da yéen itam ONG ngeen man j'en ai pas <laughs> besoin et je dis ici je mets au défi n'importe quelle institution internationale pays arabe ou autre de prouver que nga jël sa 1 franc jox ko Jamra. Jamra musul jot benn financement on n'en veut pas on n'en veut pas. d'ailleurs waaw ñun c'est sur la base de cotisation et de de donation de nos sympathisants. voilà comme yéen fin du mois dina leen fi indil jox leen prospectus bi ngeen joxe dara. <laughs> voilà ñu moom jotuñ dara. <laughs> mu leer waaye ñun soxlawuñu xaalisu. <laughs> jërëjëf Pape Bessi Ba jërëjëf Mame Mactar Guèye.